les euh, fantassins dans leur pays respectif donc mu nek mbir boo xamante tamit ku nek mi ngi si euh, sanni ay kàddu après polémique bi nga xamantene ne euh, na xew lan mo tax li quotidien titre tay une décoration qui fait polémique Nax c'est pas mérité wala tay jini ni am ay yenen mbir yo xamantene mën mun nañ ko soulever wat Mustafa. Wa li tax li quotidien titre ko moy waxtu bi mu ko décoré la waxtu bi mu ko décoré ak mhm. ciow li nga xamantene général Kandé bañ ko fi jëlé Wa ba am fi ay journalistes yoo xamante sax am lante fi ak yoon. jël nañ leen fi dem leen fi déglu leen fi. <laughs> bàyyi waat leen ñibbi waaw am fi ñoo xamante ne wax nañ fi lu waxuwul. donc jur na fi benn benn tension ak benn coow loo xam ne ci ci dëkk bi ne serait-ce que pour ça. ne mhm. serait-ce que pour ça pour man. Mhm. Euh, décoration bi dafay doon loo xamante ne mën na jur polémique. ne serait-ce que ni mu niñ ko jëlee. yóbbu ko fële nga xamante ne moo di New Delhi. anam yi mu demee ak polémique bi nga xam ne jur nañ ci dëkk bi nekk ci polémique mm-hmm. pare guñu nga dégg ñu ne décoré nañ ko mën na jur polémique mm-hmm. loolu mooy remarque bi ñu ci njëkk a def beneen remarque bi ci bi ci topp mooy gërëm yax tagg yi man Mamour suñu àndee ma jékki-jékki ñu ne ma France mi ngi jaajëfal Mamour mi ngi gërëm Mamour mm-hmm. dinaa commencé di xoolaat Mamour parce que France bu ñu la gërëmee mbaa ñu tagg la rek am na lu xew non non am na lu xew parce que ñoom seen diggante ak ñun dafa leer ba nëbbatuñ ci dara seen diggante mbirum intérêt kese la bu fekkente ne dañoo dugg ci kër gi. fekk Mamour moo leen gën a yaatal Mamour moo leen di may ñuy dugg ci néeg bi di dugg ci fii. def nii def nii di jël kër bagage kër gi di ko jaayate kenn du wax Mamour bu ñuy génn kër gi dañ koy defal lettre def nii gërëm Mamour. man ñu ne ma da bon da ngaa raciste da ngaa def nii da def nii parce que ñoom seen intérêt la ñuy xool. amul leneen leneen lu ñu xool bu ñu la jaajëfalee rek c'est parce que ñoom euh, gis nañ gis gis fekk nañu gis nañ seen bopp. seen bopp gis nañ ay avantages yoo xamante ne beneen mbir bi ci topp. Mm-hmm. mooy li nga xamante ne moom lañ ko defal euh, chevalier de la légion d'honneur bi ko defal ni mhm. du lu fi bees semga bi ñu tamit euh, di général euh, chef d'état-major des armées mhm. Cheikh Wade defalon nañ ko fi mhm. on nous dit que amna ñeneen sax ñoo xamne amon nañ ko donc amna ben une longue liste Amna ben liste waaw ñu une longue liste bo xamante ne jot nañ ko am Légui nak état acte bu mu posé ak luma def amna lutax. genre teranga la dama la koy defalee ak yi c'est pour vous dire que ni gis nga suñu diggante ak France du yomba dag. non du yomba dag. France mi ngi jaajëfal suñu ay nit. Mhm. mi ngi leen di félicité. ñii mi ngi may ay xaalis ñii mhm. mi ngi leen di. ça dafa dafa ba léegi dafa taxaw taxawaayu comme papa ak doom. waaw comme papa ak doom taxawaay boobu la taxaw ba suñu président sax liggéey ba wàcc. Mhm. seen président jël ko wutal ko liggéey. est-ce que yaa ngi comprendre suñu diggante ak France tey ji moo tax ma ne ñi fi nekk nii. am nañ say wu rëy a rëy woo xamante ne war nañ ko lijjanti suñu diggante ak France parce que man bi ma gisee affaire bi démb ma ne bon tiens léegi ñoom seen seen seen am nañ fi général mhm. day félicité encouragé def ni le président Diomaye demoon euh, toog ak Macron demoon demoon toog ak Macron moo tax ma ne pour ñu redéfinir suñu relation ak France mhm. il faut mu laaj euh, il faut mu laaj courage d'abord waaye mhm. tamit du doon lu gaaw man loolu laa ci gisee parce que relation bi dafa dem ba ci yuq ba dafa dafa dafa dafa sori te sori boobu mu sori moo tax du loo xam ne danañ ko lijjanti si trois mois wala ñu koy lijjanti si un an parce que mm-hmm. affaire yi dafay laaj ay jéego dafay laaj ay taxawaay boo xamante ne war nañ ko taxawee mais liñ ci liñ ci liñ ci ci mën a comprendre rek mooy geste bi du lu fi bees. waaye période bi ñu ko defee. waaw na problème. Mm-hmm. Euh, nañ ko defee tamit. texte ba ak nous mel ak bo paragraphe vas-y. Euh, Moustapha dañu wax que cette nomination a été communiquée dans une lettre datée du 7 juin 2024. Mhm. ñu rendre ko public le 24 juin 2024. so gissé écart bi nga xamantene mhm. entre le 7 ak le 24. gudd et pourquoi ñu xaar ba en ce moment ci ñu génnee euh, ñu rendre public encore une fois cette décoration là. Oui, mais il la lay wax waxé ni. amna amna na am na am bu ci am. am na caf kak bu ruube bu ci am mhm. parce que tey jii am na ñoo xamante ne bu doon yenn yenn état yi la waaw ne serait-ce ni mu demee nit ñi mhm. naan coow am na lii amul da ngay téye sa da ngay téye mhm. parce que kenn obligé wu ko kenn forcé wu ko mu def ko daf koy téye jàpp ñàmburam parce que su fekkente ne tey jii yow da nekk sa kër nga bàyyi benn nga génnee ko sa benn surga génnee ko ci kër gi mu génn dem yow nga am bët boo koy xoolee parce que peut-être am na lu xew seen diggante man ma woo surga bi fat ko neexal ko jox ko xaalis mais yow ban bët nga may xoolee am na bët boo may xoolee. am na bët boo may xoolee loolu mën na indi suñu njàkkasan suñu diggante bu dee suñu kër dafa jàkkaarloo. Hmm. am na bët boo may commencé xool. parce que da kii peut-être am na lu mu bëgg a xam. sam biir kër peut-être am na loo am peut-être peut-être peut-être loolu lay jur. Hmm. moo tax ma ne ci contexte bi mu ko defee ak ni ñu ko defee mën na indi yenn interprétation yoo xamante ne dafay dox suñu diggante ak France. Hmm. moo tax ba tey damay wax caf kak ruube goo xamante ne gars yi dugal nañ ko ci biir parce mhm. dëkk bi ko def moo tax loolu lépp jàngatoo yëpp dañ koy mën a pousse ba foofu dëkk bi ko def du gan ak ñun France déstabiliser na fi ay dëkk fii ci Afrique waaw yu bëri sax France làqatu na fi ci ginnaaw ay ay ay ay ay ay xeexu con euh, euh, pas confrères yi groupe ethnique ak yooyu noonu pour mën a mën a écarter ab njiitu réew mhm. France jëlee na fi njiitum réew indi keneen teg ko ci kaw ci teg ko teg ko mu ñëw jiiti si biir dëkk ba France làqatu na ci ginnaaw ay réew yoo xamante ne tey jii dañoo def coup d'état mu taxaw wa taxaw jàppale leen làqatu na si ay dëkk yoo xamante ne dañoo def coup d'état àndul si coup mu taxaw di leen contre kon dafay def la pluie et le ci continent bi léegi nag kookoo taxawaay boobu mu am ci continent bi moo tax geste bu mu def do mënoo ko jël comme un geste anodin mënul am geste bu mu def rek am na fu mu ko teg. y a quelque chose qui se cache derrière am na lu am na am na lu mu teg ci ginnaaw. Mm-hmm. lu mu def am na message bu mu bu mu bëgg a sànni ci ginnaaw. Mm-hmm. léegi nag ñi nga nekkal ñooy xam loolu ba pare mën a jàkkaarloo ak moom nag. parce que mm-hmm. je pense que euh, fi ñu toll nii ñoom reconnaître nañ ko ñii reconnaître nañ ko mooy àndu nawle bi ñuy exiger. àndu nawle bi ñuy exigé parce que. mënoo mënoo mënoo comprendre tey ji euh, mu am benn général boo xam ne dañ ko jëlee fii il ko musu polémique ci dëkk bi ci musu am. musu am mu président de la république jëlé ki fi le. fele jël sax euh, bu administration territoriale bi euh, diplomatie bi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak lay ñun may constitution moko may. Mm-hmm. loolu bu ko polémique mm-hmm. il a fallu que l'arrestation arrestation nit ñi daal dog jàpp seen ñu dem quelques moments après France dal di ñëwaat ne décoré

ñom que ñu dans un jeu au moment où xam nañ nek actuellement nos autorités étatiques il euh, manam duñu nous hésiter à prendre des décisions yi nga xamantene peut-être euh, dinañu génné les corps français fi ci territoire du Sénégal. xam nga depuis euh, deux ans wala trois ans. waaw sentiment anti français bi dafa dafa don mag, mhm. ak mouvement France dégage. ak mouvement yu bëri yi nga xamantene mouvement nationaliste yo xamantene dañoo wax ne. France daf ñuy abal. Mhm. xam nga loolu dafa commencé am doole France ne damay anticiper. commencé ne léegi du ma wax ak kilifa sax waaye jeunes yi laay woo fi recevoir leen waxtaan ak ñoom. Mhm. ba réussir ko. ñu avancé waat ñu dem mais mu rendre compte ne tey mouvement boobu mi ngi a ñëw mi ngi au pouvoir sax dañ leen ay nationalistes lañ. Mhm. Ousmane Sonko ak président sous région bi ñi nga xam te ñoom lañ doon am as néew yaakaar leen téye leen ba léegi daanaka même Côte d'Ivoire moo fi am Gabon coup na fa ñu bëri sax ñu ngi naan bi am na lees waxul. Hmm. bien vrai que gis nañ ne France na mu fa amee. ak que que ka fa toog gannaaw ba coup d'état bi amee. Hmm. foofu tamit lees waxul am na fa. Hmm. boo demee Mali boo demee Niger boo demee Burkina yëpp ñàkk nañ ko actuellement. léegi ñu ne lan moo fi des mooy waxtaanaat. xool naka la ñuy def ba ñoom ñu gis seen bopp suñu ànd bi comme fi ñu toll nii xam nañ ne ànd bi arrangé wu leen mais fan yee passé lañ génnee note ñoom ñu ne seen euh, militaires yi nga xam ne dañoo nekk ci biti dañ leen di wàññi ñu ne dañuy wàññi wàññi te boobu ne dañ ñoom ñi anticiper ñu ne léegi non dañuy dañuy wàññi effectif yi nga xamante ne ñoo nekk ci base militaire yi nekk ci ba moo tax ma ne la ñoom xam nañ li mm-hmm. gars yi bëgg fi ñu toll nii xam nañ ko de mais dañuy jéem a anticiper. dem jéem a toog waxtaan xam nga bu nay wàññi. Mhm. de proposer nee naa wàññi peut bu ngeen dee trois cent et quelque ma ne naa fi bàyyi cent ak yu ni mel gars yi ñun bëgguñu cent. Mhm. yéen ñëpp dañoo bëgg ngeen dajale seen i bagages génn dem. ngeen dem loolu lañ bëgg. mais ñom ñi ngi anticiper loolu lañ wax fan yee passé wàññi effectif yeeg yu ni mel parce que xam nañ ne c' est devenu une demande. kon ñoom xam nañ li fi xew. Mm-hmm. parce que am nañ ay renseignements si biir dëkk yëpp. am nañ fi ay renseignements mm-hmm. xam nañ li fi xew. Mm-hmm. léegi li ñuy mën mooy parfois di anticiper wala def euh, benn genre dialogue boo xam ne dama def benn proposition 5 pour pour pour pour avoir 3 wala 2 te loolu je pense que ñi fi nekk euh, duñ leen ko may parce que euh, man dama gëm ne de suñu diggante ak France. mën nañu ànd àndu nawle. kenn waxul nag ne dañuy bàyyi France wala nangam ak nangam parce que àddina moo doxee noonu. Mhm. mënoo toog nga ne damay bàyyi turc yi mënoo toog nga ne damay bàyyi chinois yi mënoo toog nga ne damay bàyyi français yi mënoo nga ne damay bàyyi ñii mais ku nekk am nga sañ-sañ ne yow mi may àndal kat àndu nawle la ñuy ànd te loolu boo bañee ma dem seeti sa morom mu nangu ko parce que àddina bi moo ubbeekoo nu ni mel.

nga bàyyi premier bàyyi deuxième bi jox ko ki bàyyi troisième bi jox ko quatrième si je ne m'abuse pas troisième wala quatrième la jël nga bàyyi ñi li ñëpp jox ko ko ki ne ko li moom duma ko def parce que normalement ki war ñu euh, n'est pas le plus méritant waru ko mëna gagner mm-hmm. mu ne ko da nga koy def mu bañ gis nañ li mu juré yooyu ak coow li si am yëpp lolu bu don tay ji mm-hmm. du France bi nga xamantene mo la laaxut ci ginnaaw est-ce que dina ko am c'est-à-dire parfois dañ fu mu toll foofu ne sa rew ngay wara jital ci lepp te loolu la ñu soxla ñoo xamante ne ay véritablement ay patriotes la ñuy doon. réew mi gën a leen lépp réew mi la ñuy jiital si lépp lu ñu lépp lu ñu négocier Sénégal lañ ci xalaat waaye soo négocier naan su ma signé. mën naa ci am lii ce président naan suñu ma signalee tamit beneen loxo bi nañ ma ci joxee lii réew moom du ma sa développé et on espère que mhm. ñi fi nekk yooyu yëpp dinañ ko corriger mhm. su ko defee sénégalais gis seen bopp ci ressources yi waaye tamit lépp loo xamante ne France te du France donc mhm. France teg na ci loxo ak yeneen puissance yi teg nañ ci loxo ñu xool naka la ñuy def loxo ba buñ ko mënta teggi mu daal di wàññi loxo bi tuuti ñu mën see gis suñu bopp Moustapha c'est vrai qu'en Afrique nos dirigeants dañu mës a nekk à la solde euh, des occidentaux et suñu gisee ce qui se passe un peu partout dans la sous-région mën nañu japonais que les nouveaux leaders dans le continent africain ils sont en train de prendre leurs responsabilités donc mu nekkoon euh, li quotidien euh, la une concernant décoration bi nga mais préciser. général Kandé du premier général bi France décoré effectivement man dama rappeler parce que am ñu bi mu mhm. commentaires comme si te bu dara ne këtt na jonn dafay baax balaa nga cee réagir nga daw gëstu ji ne serait-ce que deux internet xool. Mm-hmm. Euh, def quelques coups laaj ñi nga xamante ne am nañ ci xam-xam ak yu ni mel su boobaa dina la dimbali il n'est pas le premier général boo xamante ne France décoré na ko d' accord am na benn liste ba ci Cheikh Wade bi nga xamante ne récemment nekkoon ne semga fii mm-hmm. décoré nañ ko fi te man loolu dama jàpp ne sax ay tradition xam dañ koo a dagg mm-hmm. seen i décoration pour man Sénégal moo leen a parce que Sénégal la ñuy rendre su boobaa boo yow boo ñëwee toog dafay mel yow maamu da war a mën a liggéeyal war a bégal ñu c'est vrai on est dans mm-hmm. daal. parce que man da mm-hmm. man dafa am lu ma gëm quoi man dama gëm ne. nañu ànd ak ñoom àndu nawle daal. ñu yem seen dëkk ñu yem suñu dëkk. parce que ñoom am na yu ñuy defal yow ñun duñu leen ko defal am na yenn marque yoo xamante ne ba léegi diggante àndandoo papa ak doom boobu lañu war a bàyyi mu doon àndandoo frère ak frair wala àndandoo sœur ak sœur man loolu laa gëm. Mhm. maanaam ñun ñuy ànd ñëpp dañuy jàppee suñu morom ay àndu nawle. mais pas àndandoo papa ak doom boo xam ne à chaque fois papa ji day jël benn mburu génnee jox doom ji mu lekk bu doom ji bëtam xonqee mu daw taxaw si papa ji ne ko papa sama mhm. ma lekk euh, bu doom ji gañee dara ñëw na ko am papa lii laa gañee mu xool na ko indil lii jëlal lii nga dem yóbbu ji toog àndandoo boobu la ànd ak France bu ressource feeñee si kër gi doom bi daw ñëw na ko papa ressource feeñee si kër gi mhm. paa bi ñëw taxaw xool na ko jox ma lii lii jox bu doom ji banqué ne ko papa damaa soxla xaalis mu ñëw jox ko am lii lii demal nga jënd lii li ma la jox ni que lii kaye nga siy jënd lii big nga siy jënd li ngay jënd 1000 francs laa lay jox lii demal nga jëndee ko kaye mhm. lii ndekkee ko lii demal nga jënd ci ndox lii nangam ak nangam acca bu subaa nga ñëwaat bu jeexee ànd boobu la ñuy ànd ak France mais loolu la ñu bëggatul la ñu wax c'est-à-dire mu doon àndu nawle mhm. su ma la joxee damay xam ne Mamour man maa ko jox nawle la ñu dama jox mu doon man mooy xool fu ko neex mu dugal fa xaalisam mu bàyyi ci xel su may wax dama koy respecté moom mu respecté ma mais pas su may xool ak moom gagnant gagnant mm-hmm. su bu doon tant mi ngi doon euh, àndandoo doom pas bi suuf lay dom doom ji doom ji bu koy xool di ko ci du am équilibre te loolu euh, j'espère que ak autorité yu yees yi dinañ ko rectifier parce que c'est une demande de xamante ne mhm. ndaw Afrique ñoo ko soxla mhm. waa réewu Afrique ñoo ko soxla euh, président yi ñoo ko soxla et amna yaakaar ne dinañ jublu ci processus boobu noonu nous ko defee euh, ñu daal di gën a moom suñu bopp gën a faire nous gën a féex. ñun ñëpp am nañu yaakaar que déclenchement de processus bi dinañ ko wëyal surtout ak actes yi nga xamante ne naam suñu autorités yi ñu ngi koy posé Moustapha dañuy sur euh, journal L'Enquête euh, ñom liñu ligne titré